halaan bikum am naa lu ma leer nañ ne wote 2019 yi njiit réew mi Macky Sall dama ko fiy jëlee wóor na ma na maay nekk président bu Sénégal du samay kàddu maali Gakou moo ko wax ci Sud Quotidien aa ah, yaw nee na Macky ni mu yore réew mi baaxul santu yàlla rawatina plan Sénégal émergent boobu moo nar a daane nërmeel Sénégal ci ak guuta jafe-jafe yi askan wi nekkee moom rek moo ko mën a saafara ci programme am bi mu andi te sénégalais yi jox nañ ko gët moom Malick Gakou ba tax mooy daane Macky keneen ku bëgg a daane Macky Karim Wade baayam Ablaye Wade ma ngay nas ay pexem ngir nu Karim Wade ñëwee ci réew mi bokk ci wate yi di ñëw réew mi yéene kaay moo ñu na ko gis nga tey mën nañoo wax ne moo ko ko teg moo yooyu tey séq na waxtaan ak yéen a kaay bi aa yaaw seetal nee def ci àtte Karim Wade bi dara laa ci rëcc wut sama liggéey rek laa def la mu def moom njiit réew Macky Sall kaj ji dàq football ca biti Ablaye Ndour dajamba tey laa kolos yéen a kaay nee na ndekete yëf yi ay wax rek la waaye Ablaye nduur kenn dàqut nay leer laneen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne fukki fan ak ci weeru soin ci leen njiit réew Macky bëgg ñu amal dialogue national waxtaanee naka la jëfandikoo pétrole ak gaz bi ci réew bi bëgg mu leer ci bopp askan wi waaye tamit juboo am ci le soleil yéen a kaay ñi ko xamal direct info mel ni ku naan ko yow fexeel ba juboo am ci rek ndax opposition bi ku jéggi est-ce que duñ boycotté waat maanaam lànk bañ na duñ ca bokk Dakar Times na ko man nag li ma ko tardel laneen lu tardé Sénégal muy parrainage biñ fi wote andi ko ngir élection yi ba léegi jëfee gi am na jafe-jafe aa yow seetal moo tax kuréel gi ñu dénk doxalinu parrainage bi ña nga ca réewum Pologne ngir jàng foofa loo xam ne bu ñëwee Sénégal mën a jëfee parrainage bi laas yéen a kaay ñu ko xamal li mu ñu xamal moom enquête yéen a kaay mooy ne état bu Sénégal mi ngi yore bor yu du xaj du jeex ay këru liggéeykaay yu nekk ci réew mi war leen ko fay aa seet établissement enseignement privé bi fukki milliards a juróom la leen état ñu ne déetewaay waa Ecobank yi état leen xamel ñaar fukki milliards waa EFAS CDE lu ëpp juróom ñaar fukki milliards ak juróom ba tax yéen a kaay bi ne këru liggéey kaay nekk Sénégal am na yoo xam ne tëj nañ daanu nañu am yoo xam ne seen fa taxaw am yoo xam ne ma ngay waaj taxaw lépp ak waay yéen dafa ñaaw baaxut laneen lu baaxut mooy askan la mu ca ndakaaru xëy suba ba ngoon duñ am ndox muñ naan ba tax ña nga yuuxu wàllu l'évidence yéen kaay moo ko xamal ne quartier ba ñuy wax Parcelles Assainies ñaari tali cité suprême sonn nañ de te mooy yéen kaay moom di ñu xamal si jamono jooju ne kër gi yor wàllu séddale ndox mi SDE boo moytu dana gañee ab appel d'offres ci séddalem ndox ci yenn ci ay barab yu mag mag yi étudiant Omar Pène wéykat nañ moytoo perte dis perte la sax ci bañ a perte organisation baccalauréat atum ren bi du kenn ku ma njiit réew Macky ci l'évidence yéen a kaay nee na examen bac bi ren fa bëgg amal ko ci anam gu mucc ay ay sàcc ak bëggut ko fee dégg ki dégg li ko naqari nag du kenn ku may Farba Ngom te kenn waxut ko ko ku may ayaw seetal Cissé Lo nee na Farba Ngom na wax sénégalais yi milliards yi mu am fan lu ko jëlee ndax bu yàggu dara Farba Ngom xam nga lan moo nekkoon liggéeyam puus ay brouette ci aéroport bu Ndakaaru leer na yëf yi leer mi ngi ci 24 heures yéen a kaay tàggat yaram jogante xaritoo Sénégal ak Croatie Sadio Mané nag nee na danañ def luñ mën ngir mbuqi waa Croatie mi ngi ci stade yéen a kaay yéen a kaay bi di l'observateur jox kaddu Habib Beye nee na xalam dal na am na qualité ci équipe nationale ak Sadio Mané Diomansy Kamara ne Sénégal ci wàllu offensive maanaam ñuy dugal kenn gënu leen a ay José Mourinho entraîneur bu Man United nee gis na Sénégal mu def lu rëy ci coupe du monde bi dem ba huitième a kaay bi Eumeu Sène ak Bombardier mooy ne seen combat bi xaatim nañ ko ca CNG te jox nañ leen ay mbuusi million weeru soulier ci la ñuy laale ñi mënta ñàkk laale boo mooy tuut mooy diggante waa Leewtoo production ak Modou Lo mbër aa ah, yaw seetal Pape Thialis ay fan yu néew su leen Modou Lo dellawut seen xaalis ba fañ koy porter plainte yóbbu ko ci yoon ndax seen contrat ba respecté ko te loolu baaxut leneen lu baaxut ci wér-gi-yaramu askan wi mooy tuxum cigarette enquête yi ko jox yàq sa xaalis ba pare mu jox la cancer feebar jàngoro te cancer moom ray rek ñiy tux est-ce moo leen war a gënal seen bakkan yi moo leen war